ñu war jàll nañ ba pare dañu war a compléter 7000 parrains. kon koy jàll ko. validé ko moom xam nga parrainage bi. Ah. yombul surtout si ñun. Ah. parce que dafa am yu fi jot a xew. te nit ñi bàyyiwuñ ci xel. Mhm. bi nekkee en plein euh, parenage mhm. vraiment vitesse de croisière. Mhm. Euh, waa kër Amadou Ba dañu song. d'abord dañu dem corrompre Habib Niang. <laughs> l'homme de Thiès. Habib Niang déjà joxoon nañu malheureusement. xam nga malheureusement yéen. waaw dafa am nitu Thiès mais am na nitu Thiès ak doomu Thiès. ah oui waaw. kii doomu non nitu Thiès moom vraiment. waaw ah, nitu baax non donc mu corrompre euh, euh, Habib Niang. waaw joxoon nañu cinq mille parrains. dañoo obligé parrains yooyu ñu sànni ko à la poubelle. ah oui. Ah, ñu ñu dugg jóge la muy songaat Saint-Louis suñu délégué régional ki yoroon parrainage bi mhm. ñu débauché ko demaat ci Kolda ñu song euh, délégué ba débauché ko te ñooñu suñu parrain la ñu yor bokk la ki doon wax naan dañ ko proposé poste LONASE xaw ma waa léegi nag mu am ñeent ñaari délégué yu Louga ak bu bu Tambacounda bu ñu leen débauché ñu bañ ñu jël fay ay nit ne wax leen ni yéen yéen représenté yéenay délégué région yéenay délégué Boun Abdallah Dionne. dégg nga loolu ñu jéem def ay vidéo ne ñooy dere voyez-vous loolu xew na fi donc euh, bu ñu songee ensuite euh, loolu su amee dafay dafay dafay am. dafay impacté ci sa parrainage et puis on de croisière. Mm-hmm. on avait presque léegi nag on ñu xoolaat situation Saint-Louis xoolaat situation Kolda ak yenn ak yenn situation ba pare nag di wër ci réew mi képp koo xam ni yaa ngi parrainel euh, Boun Abdallah Dionne ñu proposer la xaalis pour nga jox leen euh, kayit yi voilà ce qui s'est passé. pour nga jox leen fiche. pour ñu jox leen fiche. pour ñoom ñu yàqu ko pour ñu yàqu ko. voilà ce qui s'est passé donc ak yenn ak yeneen yeneen donc la corruption a a a marché mais malgré cela on a validé on on a validé onze régions. ok sur sur les sur les quatorze onze régions validé nañ ko. ça veut dire que bu ñu am woon un dispositif de mitigation code bu ñu dem ñu éliminer. bi ñu dem rek ñu ngi éliminé waaw donc. Euh, régions, voilà 14. on a la possibilité aujourd'hui de déposer encore vingt deux mille parrains. Mhm. mais vingt deux mille parrains yooyu sept mille huit cent lañ ci soxla sept mille huit cent quinze pour jàll. mais on va déposer vingt deux mille et quelques parrains. ok heureusement que bi ñu defee ñun dañoo continuer woon parrainage bi. malgré sax euh, kii bi même ñu arrêté ñoo continuer mhm. def on ce qu'on appelle un stock de sécurité. Mhm. boo xam ni denc nañ ko pour que pour situation bi bu amee ba pare xam nga euh, ren euh, li ñu ci indi mooy tirage au sort. Mm-hmm. di nga gis benn waay joo xam ne tekkiwul dara mosoo nekk ministre mosoo nekk directeur xëy na sax mosoo liggéey mosoo nekk premier ministre tirage au sort bi ñëw nga nga jiitu. Diagne vraiment man dama d'accord que je vous nekk ministre nekk ministre. xëy na sax mosoo liggéey. am nga ay candidats yoo xam ni yaa ngi dugg dugg yaa ngi yaa ngi yaa ngi am Birama waaw bàyyi ba ñu Birama Birama président ngeen président de la république est-ce que xam ngeen président de la république nekk ministre nekk ministre taxul maa ngi ñëw nga nga yell ci poste dafa am fu mu bëgg a jëm dafa am fu mu bëgg a jëm am nga ñu dañuy fooy suñu bopp ah, xam nga nekk xam nga président de la république mooy décide de est xam ngeen loolu si le président de la république qui décide de la guerre bu ñu waroon tey songu Mauritanie président moo koy signé tey bu ñu amoon tey ma ma ñëw rek voilà bu ñu amoon tey nucléaire moom moo yore code yi. Mm. Oh, donc président de la république. c'est que olof moo diis boo voilà wax maa ngi koy jégalu sax quoi. mais fii journaliste yi fi dugg sax da nga leen di tànn non. da nga leen di tànn bu baax def casting dugal leen waaw bu fekkente ni bi dañuy permettre n'importe quel sénégalais nga xam ne ñu si bëri xamuñu seen parcours kenn mësu leen dégg fenn. nu ñëw ñu yemale leen ak ay sénégal yoo xamante ne bii ñu juddee ba léegi ils sont au service du Sénégal man foofu laay waxee foofu laay waxee cest à dañoo war a en namo ñu defaat mais xoolal ab la joo xam ne joxuñu sax caution

pour un pays de 17 18 millions d'habitants ñu war a am 93 candidats mais c'est c'est c'est c'est inadmissible. man mi di wax ak yow yor yor naa ay position ci état bi mais je sais que mënuguma nekk président de la République honnêtement. non donc pour vous dire pour ñëwaat na ci parrainage bi donc loolu mooy indi benn gàllankoor ci suñu parrainage ñu obligé waat. yu bëri ñu reprendre ko. rattrapé ko mais vous avez combien de temps xam nga parrainage leen rek moo ci méchant. Mhm. ma wax la ko li ci méchant mooy euh, mooy les les le quorum exigé pour chaque pour le sept régions. waaw ah, loolu moom c'est c'est boo boo ko boo ko boo ko boo ko amul c'est difficile. Mhm. mais bu fekkee dañu laaj rek un nombre. nga xam ne mën nga koo jële à l'inter mën nga koo jëlee ci diaspora mën nga ko jëlee fii mën na bañ a compliqué mais bu fekkente ne bi nag ci biir nombre bi da nga war a ñëw compléter ay ay régions loolu mën na mën na difficile. ak les doublons et autres. donc de façon jël nañu suñu disposition. xamoon nañu ne situation boo nekkee quarante septième. position. waaw ah. quarante septième position quand même euh, quarante six jiitu la mais doublon yi. mais loo gën a sori ci rang bi rek. mu gën a métti mu gën la gën la mmh. désavantagé. Mmh. loolu moo ci moo ci moo ci moo ci nekkoon. mais liggéey bi. def nañ ko sérieusement et c'est l'occasion pour nous remercier kii féliciter Mounir si ni coordonnateur parrainage bi féliciter aussi donc euh, sunu ñu wax Noyin Lo nga xam ne mooy mm. euh, ingénieur informaticien bi yore euh, kii def nañ liggéey bu bu baax a baax mm-hmm. vraiment amuñu si benn inquiétude ci ci loolu man mi di wax ak yow sax démb biig Sénégal yu bëri sama bu ma ubbee sama <laughs> téléphone bi dañ maa yónnee ay carte d'identité ba xajatul ci téléphone bi pour maintenant am na leneen aussi lu ma bëggoon relever. Eh, vraiment président Macky Sall may ma rek Birama bii moom maa la ko ñaan. parce que moo doon moom a gën a tax a ñëw. Eh, ndax léegi dañuy wax. wax looy waaj wax. jàmm rek la. dañuy wax ni Boun Abdallah Dionne émission bi des na. waaw may ma rek ma dugal bii rek at ma jox la. vas-y wax souvent ni Boun Abdallah Dionne euh, mooy plan B wu Macky. ñooñu nit ñi dañ koy salaamaaleykum dañuy commencé. waaye bàyyi ba ñëw rek dama ko bëggoon leeral. indi ay leeral <laughs> benn li ñu Amadou Ba def ci parenage bi te Macky Sall xam ko gis ko fekki ko bu fekkante ne ñoo ñooy candidat am du ko seetaan ñaareel ba man dàq na ma ba mu ñëw émission fii. ba ma fa jógee ah, mu dàq nañu Mouhamed Moustapha Diagne dàq nañu Mounir Mounir Sy. waaw ah, bi ngeen ànd ak John. dàq nañu parce que moo leen joxoon ndox waaw bàyyi ba ñëw rek El Hadj dañ ko bàyyi ba mu dem aéroport di di di daan day voyager. mais ñoo ko joxoon poste maa ngi ñëw nang c'est pour non li ma bëgg expliquer normal na ja non jàmbatuma ko de. waaw jàmbatuma ko de li nga wax sànq dafa am ay risques aussi. mais li tax ñu dàq mooy da ngeen dem donc pour que pour ñun exemple lañu wane ni Sénégalais yëpp ni bu ñu nekkoon plan B Macky Sall du ñu dàq wala mu ngi nangu ay ay. passeport diplomatique donc wallaahi wallaahi wallaahi non politique moom yeggul foofu nag parce que ki la ki la dàq loolu laa bëgg xañ dépense non politique yëgul foofu. ñu leen di jàppal ci lii nag en attendant. non non wallaahi. politicien la biira man yoo xam nga du ma nekkuma sax ci yooyu. yàlla baax ma position avec Boun Abdallah Dionne je l'ai mhm. assumée parce que j'ai considéré expliqué naa. comme ni nga assumé woon bokk ci Macky 2012. voilà comme ni mu assumé woon voilà avant muy falu. Ah, donc man man saa moom neex na ma trop. parce que moom dangay teel a war politique mënul ñàkk éthique. bu fekkee da dem dangaa dem si si Mame Boye Diao ba ci yàgg. Ah, nga sàcc clé Mame Boye Diao. Adama laa fekkoon sax <laughs> sax Adama fa xam nga yooyu aussi. Adama ne. da nga koy lii dafa ñaaw ñu ko de sama xarit la Adama Fall sama xarit la suñu xarit su ma bëggee dama koy woo du sama xarit sax dañu doon liggéeyandoo su ma bëggee dama koy woo mais dafa am yenn affaire yoo xam ne boo ko defee. da ngay assumer lu positif xam nga li nga def nii mais carrément ñun fii la bokk. fii la ñu àndal ma ñëw nag ànd ak Birama ba si yàgg rien pour. sàcc bigu Birama bi pour yóbbul ko même la dul fay quand ah mais man de man de système ba pare nga assumé ko. ñun ñu yare xam lu ñuy wax. ñaawaay ñu doon daan publiquement assumé publiquement. publiquement maa ngi nii kila baa ngi nii boo xam lu ñuy wax. fu ñu yare seen maam yi dawuñu dañoo jeex. waaw. dañoo seen maam yi dawuñu dañoo jeex. moo tax boo nee waaw na nekk waaw boo nekk déet na nekk déet ak loo ci fekk nag euh, fekk la ci.